tey jii ñu ngi jàkkaarloo ak jëwriñ Baye Modou Baye Modou Ngom moom xam nañ ko daanaka ci initiative chaque année ñu fi ñëw vraiment yeesal armée yi ren aussi ñu ñëwaat fi tey jii euh, vraiment muy liggéey bu am solo ñii kenn amul seen fay moom yàlla rek am seen fay Baye Modou ñu bëggoon liggéey initiative bi chaque année lan la organisation de représentation mais xam nañ ne yéen moom vraiment parce que bu ñëwee ci suñu jëlee dafa armé yeesal bi macha allah bëggoon xam waat yi préparation. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh ginnaaw bu ñu sante yàlla julli Seydina Muhammad sang-sang yi ñoo ngi sant Sëriñ Mountakha Mbacké xalif général day mu te àggale ab sant itam di siyaare suñu xalifa seen am di moo di benn suñu ci dëggal ko ba mu papa jaar papa dañu ànd ak papa kaay mi kaay jaar waaw li wax ne ñu ngi leen sant waaw moo tax di wax ne maanaam initiative yi ñu jógee ci Baye Fall yi xam ngeen ne Baye Fall moom facteur de développement Baye Fall soldat de l'islam la amul xaj ak seer bu rek day daal di ñëw moo tax armée yi dafa am ci xaar kenn gis ngeen da daan toog ba tey ñaari at yooyu kenn daa ko bay bi ko Baye Fall yi jëlee nag di ko bay maanaam ñëpp xam nañ ne Baye Fall yi dañoo jël chaque année ñu koy def ba yàlla def ñu gën a am ampleur gën a am ampleur ba fédération des Baye Fall maanaam soqee ko fa fédération bi li ko composé mooy département bu Koungheul la ak diaspora bi waaw saa mu dogal nag ma nekk si bopp bi waaye bi ma nekk si bopp bi tamit am na mbooloo moo ne sama ginnaaw ñu àndal nit ñi waaw am na président organisation am na président social am na commission culturelle yëpp daal am loo xam ne maanaam daal. association di am ñu xam ne li dox nag ci liggéeyal yàlla waaw liggéeyal seen place Mame Cheikh Ibra liggéeyal askan wi jaamoo ko suñu borom moo tax nag armée yi ba ci fédération bi soxe koy ñu àndante ko nag maanaam mu gën a am ampleur gën a yaatu yemalewuñu ko nag fii ndax dañuy def saa bu ñu gàmmoo ba pare dañuy ñëw bay armée yi bu ñu paree fii dañu daan dem Jokkul bu ñu jógee Jokkul dem Thiawlène bu ñu jógee Thiawlène dem euh, cimetière yu militaire yi Camp Marchand bu ñu fa jógee nag doog a ñëw tàmbali hôpital Youssou Mbargane poste de santé yi ak école yi ak CM yeeg yëpp daaw gis ngeen ko mais ba ci fête yi sax suuf yi ne si kaw tali bi dañ doon dund kon nag liggéey boobee fédération bi da liggéey waaw te yàlla tax ren jii nag ñu tàmbali campagne bi campagne bi armée li moo ko Euh, ñu tàmbale ko bu paree nag continué waat li fa daan jaar dañ fay jaar bu ñu ci mën a yokk te ñu yokk ko ci xaaruñu maire xaaruñu président ndax danoo xam ñun si dëkk bi lañ dëkk juddoo si dëkk bi kon dëkk bi am na lu mu def si waaye ñu tam war nañoo delloo njëkkoon dëkk bi waaw te ñun fii buñ fi nekkee dañ fay nekkal maam Cheikh Fall ndax maam Cheikh Fall bu dee set setal moo ko njëkk a def si Sénégal waaw kon nag ñun tànk yooyu la ñuy la lañu lañu lañuy roy nekk ci moo tax ñun ñu initiative de Touba di bale di setal topp mbedd yi ak lépp loo xam ne ñu jaami yàlla yi bokk yëpp te yàlla luñ ci fekk si tamit di ay rëbb ñu xam ne li mën ci fekk si luñ ci fekk siwul tamit ñu def ko te yàlla tax rek waaw ndax kuy liggéeyal te yàlla tax lu baax rek moo la ci fekk waaw suñu président mi ngi nii waaw Lamine Sarr mooy président bi man ci secrétaire général Abdou Wahab Samb bi ñu sama président social commission sociale sëñ Lamine noonu lañ ko liggéey bi nag dañ koo jàppee dem nañ ci maanaam ci waxtaanee ko waxtaanee na ko dem nañ ci jumaa yëpp yaatal ko ci ànd waaw jaarale nañ ko daal ci délégué de quartier yi ak imaam yi ñëpp bu boole ñu dégg na ko ñaari ñaari semaine ba tey ji moo tax nga daaw ak ren benn bis lañ koy jël te dañ ko daan béy ay ñeenti dimanche ah waaye kon ngeen xam ne ko yaatal moo am solo kon yaatal nañ ko yàkkal nañ ko ñu ngi ñaan rek ah, liggéey bi ñuy liggéey xam ne jaamu yàlla yëpp ñëw nañ ci même chrétiens yi sax ñëw nañ def seen alal ah ko nag maanaam ñu ngi ñaan yàlla nañ ci daje gërëma suñu borom waaw ñu ngi ñaan tam yàlla nañ ci daje gërëma Sëriñ Tuubaa ak ñu ngi gërëma Maam Saraay Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh